dana dana ko laaj sa waxambaane ci loo ko ràppal dana ko laaj sa xam-xam loo ci jëf dana ko laaj sa alal foo ko jëlee ak loo ci def yonent sallallahu alayhi wasallam wax na ne na nga màng juróom njëkk juróom sa ndaw njëkk ngay màggal sa wér njëkk sa wéradi sa féex am jot njëkk ngay ñàkk jot sa koomal njëkk ngay ñàkk waaye sa dund njëkk ngay dee féex yonent bi sallallahu alayhi wasallam am jot dafa wax ne jot dafa wax ne xéewal la jot ak wér xéewal la boo xam ne ñu bari ci nit ñi dañ dañ dañ cee perte ni'mataani maghbunun bihima kasiru min annaasi as-sihhatu wal faraaru ñaari xéewal ñu bari ci nit ñi dañ cee perte mooy wér ak am jot boo amee jot na nga ko jeexal ci lu lay jëriñ parce que xamoo kañ ngay ñàkk jot mais boo amee wér tim na ko jeexal ci loo xam ne bu wér jeexee mu man laa jëriñ ndax yàlla baax na baax boo xam ne li nga xam ne yaa ngi koy def yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko wax boo nekkee sa kër li ngay def boo tukkee mën a too ko yàlla daan la ko fay kon loolu jar na boo nekkee sa kër nga am jot nga def boo wéree li ngay def boo wéradee mën a too ko yàlla daan daf la koy fay jar na bi nga wéree ngay def ma ne baati ndaw ñëw na ci alquran ci beneen baati arab mooy alfata alfata yéen seen daayira bi sax loolu la tudd julli jot dégg ne bu ñuy wax ci diine bu jëfi diine jotee nañ ko def yàlla ngi wax ci alquran li ma taquluuna ma la tafaaluun kabura maqtan inda allahi ma la tafaaluun ku fi am sa bu am importance donte ki ngay seeti boo tardé 30 minutes dana la ko jéggal sax da nga gaaw a dem ci heure pour ñi gëm ne yow ku ponctuel nga ku gëm heure nga ku lii nga ku lële nga rawatina nag sa jëflanteeg sa borom rawatina nag mbooloo shabab yi nga xam ne ñi ngi askanoo ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu dafa mas a dem Mauritanie Mouhamed Cheikh Abdoulaye moo koy nettali ci téeréem bu mu bind ci xayaat Cheikh Abdoulaye mu ne am waajoo xam ne dafa wax xaritam boo xam ne xamul ci bàyyi dara ne ko nañ dem seeti sëriñ bi kooku ne ko ah sëriñ boobu de dégg naa moom du julli ah waa ji nag taalibe bi nga xam ne moom xam na lan mooy bàyyi bi mu ñëwee mu nettali bàyyi wax ji bàyyi na ko ah te waa ji daf ne ku óor moo ko waxal bàyyi na ko kon de ku óor wax na ko loo xam ne wérut man mi nga xam ne bi ma nekkee xale sax sama julli yi dafa bari woon ba sama baay dafa may yadd ci julli yu bëri ñu ne man du ma julli kon de kii koo waxal ku xóor kooku wax na loo xam ne amul am na waajoo xam ne dafa mas a ñëw Medina fekk dañ nekkoon dafa am Medina goo xam ne du fay jullee yàqkat yu nu ne la mu ñëw Medina am fa ñaari fan mu laajaa tigéem ne ko waaw Medina guñ di jullee moom fu mu féetee mu ne ko dañ laa waxoon dafa am guñ ñu di jullee bii rek moo fi Medina di mu ne fii moom dafa mel ni loo fi lekk rek julli ko fii kon nag taalibe baay shabaab bi xusuusan mag ñi defe naa xam nañ li ñu war a def ñang ci waaye shabaab bi nañ jël loolu boole ko ci seen askanu ci bàyyi parce que ñu ne bàyyi nga ne est-ce baax na lool waaye ñun mbooloo mi ñiñ gëm nañoo ci gën a baax fekk ñu leen woon ñuy def loolu waxuma dara ki koy def jëre jërëjëfee bàyyi waxuma dara ki koy def waxuma ko dara parce moom baat boobu la am pour express li nga xam ne taabir li nga xam ne moom lay yëg ci mbëggeel waaye loolu yëpp li ko gën mooy fu ñu la gis rek sa action ñu gis ci luy tegtale leen yow taaliba bàyyi nga mooy ci topp ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne moom rek la topp maa ngi doon wax ci ne danaa indi ay misaal ñoo xam ne alxuraan daf leen a tuddee ndaw ñi taxaw taxawaay boo xam ne ndaw yi soxla nañ ko pour royaat ci parce que looloo tax yàlla di ñu ko jàngal yonent yàlla Ibrahima yàlla nga koy tudd tuddee ko ndaw jamono joo xam ne fëtën la ko tuddee qaalu sami'na fëtën yadkuruhum yuqaalu lahu Ibrahim dégg nañ benn benn benn benn benn jeune muy wax ne di wax ci seen yàlla yooyu nga xam ne caaxaan la mu ngi tudd yàlla yooyu di leen pexeel kon ki nga xam ne moo dem daane yàlla yooyu gannaaw boo xam ne dafa gëñ sax tallahi la akidanna asnaamakum baada an tuwallu mudbirin fa jaalahum judaadan illa kabiran lahum laallahum ilayhi yarjiun dafa gëñ ci yàlla ne yàlla caaxaan yooyu mu fekk ay baayam di ko jàmm dana pexeel yàlla yooyu mu dem daane yépp ba mu des bu mag bi mu bàyyi ko fi loolu muy buntu pour bu ñëwee mu man a dàggaanteeg ñoom ku def lii mu ne leen laaj leen seen mag bi moo ko def yàlla ju mag ji moo ko def ñu ne ko ah kii dafay wax kii dafay dégg mooy leen ku du dégg du wax xamul dara nu ngeen ko toppee def ko yàlla mënuñ koo ee ci xam-xam ñi jug pour pexeel ko waaye ba ñu jugee pour pexeel ko jël dugal ci safara ak yooyu yëpp yàlla def ko musal ku naa yaanaaru ku ni bardan wa salaaman ala ibrahima yàlla ne safara si nekkal di jàmm nekkal di sedd sedd bu ànd ak jàmm pour ibrahima bàyyi na ne ibrahima bés yim am ci àddina yëpp bésam yooyu mu am ci safara soosu moo ci gën a neex ci bésam yi parce que safara su yàlla mu mujj wax ne jàmm jàmm kenn mënu koo am lu may bu la yàlla joxe loolu ndaw mën na cee jàngee ndaw lu taxaw asnaam yi dañoo bari sanam yi yu bëri lañ duur rek yàlla ju ñu sujootal benn jigéen boo topp te yàlla taxut ci xërëm yi ñuy jaamu la benn waxambaane boo topp te yàlla taxut àndoog moom ci lu neex yàlla ci xërëm yi ñuy jaamu la war ngaa xam ne war ngaa mën a nekk waxambaane bu mel ni Ibrahima boo xam ne da nga taxaw ne société bi yépp mun nañoo yàqu nekk ci lii man ma taxaw nekk ndaw loolu nga xam ne man maay daane këram yooyu nga xam ne nit ñi dañ ko bugg defee def yàlla taw du yàlla bànneexi bakkan bi yàlla la yàlla la boo xam ne da ngeen koy jaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laysa bayna qubbati samai wal ardi ilahun yu'badu a'zama min hawan muttabain diggante asamaan ak suuf yàlla ju ñu ñi topp di ko jaamu ju mel ni seen bànneexi bakkan yi nekkut fi kon ndaw lu nekk war naa taxaw ni Ibrahima taxawee pour daane xërëm yooyu yow nga taxaw pour daane sa xërëmi bakkan yooyu li bàyyi wax waxambaane yi mu doon wax ak tilka shahawaatu taaxutun taabudunaha baada daawal iman oote na yow yàlla mooy sa borom ba pare toppaat sa bànneexi bàkkan bi sa bakkan bi moo lay conditionné mënuloo tàggoog sa sa sa cigarette bi mënuloo tàggoog moom parce que wax ne miin naa ko sama bakkan bi daf ko miin mënta tàggoog moom du dëgg bakkan bi moo koy wax mais boo taxawee nekk ndaw loolu nga xam ne man naa daane sanam man nga koo daane sa kaas bi nga xam ne danga ko war a naan te mu lay tàggaleeg li nga xam ne moo gën a foor ci sa dund mun ngaa wax ne bëgguma ko baaxut ci man waaye dama ko miin sëriñ bi may dem ci sëriñ mu ñaanal ma ñaan baax na dimbali koo ñaan baax na ci lu nekk waaye boo taxawee nekk ndaw loolu nga xam ne moo taxaw pour daane xërëm boobu noonu sàngara bi nit ci topp di koy naan xërëm la xërëm yooyu njaalug yi ndaw li topp di ko def xërëm la loolu yépp xërëm yooyu mën nga ko daane te bu ñu demee ba ci biir waxtaan wi dañuy gis xërëm yooyu ñu ko daanewut ànd ak liñ liñ am ci xam-xam avancement bi am lan la leen topp xërëm yooyu lan la leen jural tey ji kon xërëm duun mooy looy sujootal nii rek waaye xërëm mooy loo xam ne bu yàlla ne topp leen ma nga bàyyi ko dem topp loolu xam-xam mënu la cee musal ndax boo amee xam-xam te topp sa baaneexi bakkan bi ba tey jaamu xërëm yooyu rek ngay def afaraayta man ittaxada ilaahu hawaahu wa adallahu llahu ala ilmin ndax gisoo koo xam ne baaneexi bakkanam la jël def ko mu yàlla yàlla réeral ko ci kaw xam-xam mu ngi amee xam-xam mais xam-xam yàlla réeral na ko ànd ak xam-xamam boobu loolu li ko waral mooy dafa topp bakkanam boo toppee sa bakkan xam-xam boo mën a am xam-xam boobu mënul laa garanti ci ñàkk réer kon fexe ndaw li na fexe ba xeex bakkan boobu danga fekk ci alxuraan ndaw loo mel ni yontu yàlla yusufa alayhi salaam nga xam ne Zalixa jigéen ji gën a rafet ci jamonoom moo ko bëgg di ko sàkku ba koy wax naan ko hay tëlëka waaye lan la yonti yàlla yusufa wax mooy may na ko boppam pare na loo pare rek pare naa waaye lan la yusufa wax maaz allahi innahu rabbi ahsana maswaya maa ngi muslu yàlla ci toggoo ba bàkkaat boobu te man sama sang bii nga xam ne moom laa nekk ak mu may teral di ma defal lu nekk mënuma koo fayee tooñ yàlla ak tooñ ko innahu laa yaflixu zaalimun ñii tooñ duñ texe ba mukk kon du tooñ sangam boobu ndax jabar yi sangam la waaye du tooñ yàlla ndax ndaw si du jabaram bu doon keneen xale bu jug léegi dafay foog ne dafa jar bàyyi mu ne sa yàquteeg jamono mën na laa ndax ba nga foog ne dangaa jar te fekk jaruloo sa jamono moo yàqu jaruloo sa jamono moo yàqu waaye fexeel ba nekk jaam boo xam ne nii danga xeeyoo danga xeeyoo daraja yi kawe ci yàlla loolu moo gën nga toog ci jamono di wax ne man maa jar man maa jar te fekk loolu amul benn njëriñ ndax gis nañ conséquences yi nga xam ne moo ci juddoo tey et lii yépp mu ngi juddoo ci bàyyandiku ak def lu la neex tënkuloo sa bopp waaye da dem ba li lay tënk du la tàggu kon bàyyil sa xel ci ñooñu nga xam ne ñooñ ñooy sa roykaay ndax alquran moo leen tudd te bi mu leen di tudd daf leen di tudd fekk ay ndaw la leen tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa tudd na juróom-ñaar yoo xam ne yàlla dana leen keral fa muy waxee njiit lu maandu njiit lu maandu mën naa nekk chef d'état chef d'état bu maandu moo moo jiitu ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla di keral parce que imam bu ñu ko waxee rek tey yi dañoo foog ne mooy ku jiite nit ñi rek ñu julli mais mooy ku jiite responsabilité boo amee ci loo xam ne umma bi ñoo ko moom nga jiite ci maanu ci loolu kooku dana bokk ci ñi nga xam ne yàlla daf koy keral mais fi yàlla di tuddee kooku njiit lu maanu foofu lay tuddee jeune boo xam ne nii dafa sosu ci topp yàlla kon nga xam ne tim jeune mën naa sosu ci topp yàlla ñu bëri dañoo jàpp ne jeune du sosu ci topp yàlla waaye shabun nasha fi taatillaahi la yonent bi sallallahu alayhi wax ndaw loo xam ne dafa sosu ci topp yàlla bokk na ci juróom-ñaar yoo xam ne yàlla dana leen keral njiit lu maandu ndaw lu sosu ci topp yàlla ak koo xam ne ni jigéen ju rafet ju am askan daf koo oo ci boppam mu ne ko damaa ragal yàlla comme li yontu yàlla yusufa def ak koo xam ne ni xolam dafa aju ci jumaa ji julli gum julli rek mooy xaar ba ca tegu pour mu war koo julli ak koo xam ne dafa wéet di di ñaan ba ay ay ay taa ak ronxañ ak koo xam ne ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ci yàlla ak koo xam ne nii dafa dundale ci ndeyjooram nëbbu ko ba càmmooyam xamu ko sa càmmooy bi ni mu la jegee nii ngay def lu baax bu fekkoon ne nit la ku la jegee noonu du yëg lu baax loolu ngay def loolu tim mën na laa boole ci ñooñu nga xam ne ñooñu nga xam ne yàlla dafa leen di keral ci ron ak ker ak arasam gannaaw boo xamee ne kenn amul ker lu mooy moom yàlla tabaraka wa taala lislaam buñ mënoon a wax ne dafa am ñu ko moom ñeneen dañuy wax ne ndaw yi ñoo moom diine ndaw ndaw yi ñoo ko moom ndax boo seetee jaamu yàlla lislaam yépp lu ci ëpp boo nekkee mag mënatoo ku aj boo nekkee mag mënatoo ay naafile guddi ràkk yu bëri boo nekkee mag munatoo moo tax juróom benn fukki at sax ku ko am ci lislaam boo toogee di naafila da ngay am yoon ba nga daan am boo taxawee di naafila loolu yépp dafay tegtale ne lislaam diine ndaw yi la te benn bindikat Bernard Shaw nga dëkk ci Irlande nga xam ne mas nañ koo jox prix euh, euh, Nobel de littérature mu gedd ko euh, ndax wax ne man dama dem ba fay naa baag ci tefes gi ñu may neexal man passé naa foofu kooku moo doon jàngat lislaam mu ne li ko gën a xéem ci lislaam mooy révolution la boo xam ne ni ndaw yi ñoo ko taxawal waaye wax jooju mu wax boo ko seetee taarixi lislaam daf lay jox loolu ndax oote boobu ku ko jiitoon mooy yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at la amoon ñeent fukki at la amoon léegi ba juróom fukki at ci xale yi nga bokk boo boo boo eewul def sa bopp mag yow doo doon mag ba ba juróom fukki at ci xale yi nga bokk yonent bi jiite woon daawa boobu juróom fukki at la am ki ci mag ci saxaaba yépp gannaaw yonent bi muy abubakar siddiq boobu mu ngi am fanweeri at ak juróom-ñaar Seydina Omar mu ngi am ñaar fukki at ak juróom-benn Seydina Ousmane mu ngi am ñaar fukki at Seydina Ali mu ngi am juróom-ñetti at Zubair mu ngi am juróom-ñetti at Talhatu mu ngi am fukki at ak benn Sohaybu mu ngi at fukki at ak juróom-ñett ñii ñoo taxawal lislaam ñii ci seen ndodd la lislaam taxawee ay ndaw lañ nga àgg ci nga àgg ci at yooyu di xool ne dangay ngay xaar ba mag yow kañ ngee mag kañ ngay mag doo mag lislaam yonent bi jiital na xare boo xam ne ki mu jiital ci xare boobu usaamatu bi mu koy jiital boobu fukki ak juróom-ñett la am kooku du wax ne xale bi dafa góob kii dafa góob kuy def lu baax ñu ne dafa góob baat bu war a jógee fii la baat bu war a jógee fii la parce que baat boo xam ne dañ koy def pour tayalloo nit ñi def lu baax tayalloo nit ñi def lu baax mag ñi nga xam ne bëgguñoo doo mag waxtu bu ñu gisee xale yi gaaw a doo mag dañ leen di sib parce que waaw ah, amoon na ci daara ji loo xam ne waa daara ji xam ko baat la boo xam ne waa daara ñu ngi koy tuddee jébaane booy jàng ñu buggut a jébaane ñu buggut a jàng léeg-léeg ñu dóor la ne yow da ngay rek da nga da nga dóor la waaw ah, am na daara yu garaawoon ba àgg sax tey boo boo taree danga nga xam am na am na ñun nokkutoon suñ daara waaye xam naa daara yoo xam ne ñi ca nekkoon ñoo ko nettali ñi ca nekkoon ñoo ko nettali loolu yëpp ay baat la yoo xam ne nii dafay war a jugee kii dafa góob waaw kii dafay mag mag loolu jigéenu lislaam bu baax boo xam ne dafay muuru ñu ne kii day meer meerlu billaay meer meerlu waaye dafay jullit jullit lu parce que man gis naa tubaab boo xam ne juróom-ñaar fukki at la am te muuruut kon muuru meer moomu ko muuru jullit moo ko moom jullit bu jigéen moomu muuru mais meer moomu ko mais tubaab yi boo leen gisee ñi ñi ñi muuru sedd bi moo ñëw métti ba ëpp ñu muuru waaye ñu ngi ñaan yàlla tàngoor bi ñëw ba ñu sumeeku kooku bul ko roy ci loolu nga xam ne moom ci boppam dem na ba xam ne lii rek moo ko desee pour mu mat yow nag moom yim amagum ci lu baax avancement yim amagum ci xam-xam lim defagum lim inventé loolu yëpp inventé woo ko jéemoo koo roy ci loolu waaye yaa ngi koy jéem a roy ci li nga xam ne moo koy delloo gannaaw ëllëg Baye Niass dafa doon wax ay taalibeem te ay ndaw yi la ko doon wax parce que boobu ay ndaw ñoo def ay discours ba pare mu wax leen ne yéen ndaw yi ñu ngi leen di xaar ngeen pare seen jàng ñëw jubalal jubbantil ñu li jubbanti li jubadi ci réew mi kooku duut sëriñ buy wax xale na ko yow da ngay góorgóorlu xale buy def discours mu ngay wax ne ko maa lay xaar nga ñëw pour li dëng ci réew mi nga defaral ma ko kooku mooy sa sëriñ kooku duut dafa wax ne mag mi rek moom moom lu baax ndaw ndaw sax moo war a baax mag dana baax ndaw dana baax waaye sufiyanke yi ñoom xanaa ñu wax li ibnu arabi alxaatimi waxoon ibnu arabi alxaatimi moom dafa waxoon ne mu ne ndaw li dafa war a wax ne mag mi moom ma gën a baax parce que bi mu juddoo léegi li mu fi defal yàlla yu baax man daal defaguma ko fi mais mag mi tim xoolaatee dana wax ne man xale bii moom ma gën a baax parce que ba ma juddoo léegi li ma fi tooñ yàlla xale bi moom àggagut foofu loolu bu ñu ci àggee dañuy respecté waaye lu garaaw la nga gis kuy def lu baax kuy def effort ñu ne kii dafa góob jigéen